mbokk yi maa ngi leen di indil nuyoo Bassirou Diomaye Faye ku wax Ross Béthio wax ñu mën a liggéey ku tudd waa Ross Béthio wax ñu mën a béy ñu nangu béy ñu bëgg béy ñu am xam-xam ci béy mbokk yi Sénégal at mu ne dina jële bitim réew benn million ak ñeenti téeméer ak lu ëpp juróom benn fukk ci ay toni ceeb muy ay milliards yu dul jeex ñu génnee ko sànni ko ci àll bi dugal ko fii pour ñu dunde ko pour dande fii ci Ross Béthio buñu leen defaloon li leen war a defal jox leen li ñu leen war a jox ci am jumtuwaay ci ay équipement ci sécuriser suuf si ci financement bu baax ci encadrement ci assistance ak formation mën ngeen bay ñaari million ngi tonnes ceeb fii ci réew mi dootuñu jëndi ceeb politique agricole bi ñuy doxal ci réew pilotage à vue le jëmul fenn jëmalewul réew mi fenn politique boobu danañu tàmbali soppi ko muy politique boo xam ni béykat yi ñooy ñëw ànd ci ak gouvernement bi nga xam ni seen i soxla ak seeni i bëgg-bëgg ak fi ngeen bëgg a jëm ak seen i objectif mooy nekk ci boobu politique mbokk yi projet bi am na gis-gis ak yéene financement yoo xam ni fii lay ñëw yu adapté yoo xam ni dina oyof dina yomb ngeen mën cee jot danañ leen gën a jàppale pour rendement yi ñu consolider ko yokk ko ba nga xam ni lépp lu ngeen bëgg di ngeen ko ci am boobu yéene la am ci yéen mbokk yi set nañu tawat yépp xam nañu ko parce que bu dee da ngay bay benn suuf si nga yor di ci liggéey moomuloo ko mënuloo cee mën a yóbbu ci banque mënoo am garantie mënoo am crédit donc sécurisation di foncier mooy bi ci jiitu boo sécurisé ba noppi dajale baykat yi jàppale leen dimbali leen ba ñu am ay kuréel yu organisé wu pour mën a def liggéey boo xam ne dina mucc ayib boo ci pare di nga leen formé boo leen formé di nga leen wutal crédit financement yu adapté ak ni ñuy liggéeyee waaye di nga def mécanisation agricole indi modernisation ak machine yo xamni nak dootu ñu jël yépp bitim réew fi lañ koy defaree ci réew mi mu adapté suñu type d'agriculture yo xamni ñom lañ am waaye dañu bëgg def lu def intégration agriculture industrie m'anam lepp luñu fi def rek ñu daal di koy transformer fi, ñu défar ay entrepôt de stockage m'anam soble bi buñ ko dindé fimné mënon ne nañ ko denc lu yagg bu fekkoon am nañu fu baax fuñ koy stocker waaye dafa mel ni melul noonu loolu yëpp nag boo ko paree di nga am ay circuit de commercialisation ñu mën ko yóbbu dakaar yóbbu ko Touba yóbbu ko ba Casamance ci ay conditions yu baax yoo xam ne sénégalais yi dinañ ci jot ci njëggu gu mucc ayib te dootuñu ko xaarati bitim réew dootuñu fi indi ta euh, di di taafantolo wala ñuy layee ni guerre am na Ukraine donc njëg yi war naa yokku wala wala Covid am na njëg yi war naa yokku ñu bëgg le 24 mars bii ñu jëm ngeen massivement jóg. Nous votons le projet pour gagner, pour ko toute la transformation de l'agriculture nous ci agriculture que indi ko Sénégal nous avons jëm kanam une souveraineté alimentaire ndax avons la sécurité alimentaire.